jër ngeen jëf internetu Leewtoo TV am mbégte jàkkaarloog yéen présenté leen seen deuxième numéro émission bi ñu tuddee jotaayu làmb jotaayu làmb tey am mbégte dalal suñu père Kati Diop Kati Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay leen di bu baax. Mm-hmm. ak di mbokk yëpp. ñu am également Alioune Alioune Ndour moom mooy vice président chargé de la communication Amalda Amalda mooy l'amicale des amateurs de lutte et toute discipline assimilée Alioune maa ngi lay nuyu. Assane delloo nuyoo di nuyu mbokk internet Leewtoo TV yëpp di ñaan yàlla defal ñu émission jàmm lépp lu ñu fee wax rek yàlla doon njëriñu làmb. amiin ñu waxtaan waxtaan ak ñoom ci actualité làmb mais waxtaan également ci ak suñu père Kati Diop ci bi war a dox ci entre Fass ak Ndakaaru dinañ wax également ci huis clos bi entre mais bu ñu ñu euh, émission bi ak suñu père Kati Diop Boy Bambara génn na àdduna vendredi bi passé loo ñu mën a wax ci moom. waaw ah, di ko ñaanal yàlla rek. yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko yàlla xare ko àjjana mm-hmm. ah sunu entraîneur la woon sunu magum làmb la woon ah, ku baax la woon champion bu mag la woon it champion la woon si la lutte olympique champion la woon tamit sur la lutte avec frappe ah, lu si bu si nekk def na si jaloore indi na Sénégal ay médailles yu dul jeex yóbbu nañu tamit ñu yóbbu nuñ ko tuddee ñu dem championnat d'Afrique yóbbu nañu dem jeux olympique mm-hmm. donc moom Boy Bambara Euh, champion bu liggéeyal Sénégal la liggéeyal na réew mi wax dëgg yàlla euh, lu waaju si làmbare bu dee drapeau yi jël na ko bu dee coupe bi tamit jël na ko bu dee médaille yi tamit indil na ko Sénégal donc yow loo ñu mën a wax ci Père Boy Bambara mi génn àdduna waaw san di la gërëmaat di gërëm Père Kati di ko ziar bu baax euh, Père Boy Bambara li ñu mën a wax si moom mooy nit ku baax la woon ko yof la woon parce que pour wax la rek da doon même lutte sans frappe da si doon ñëw. donc ñu xamoon ko bu baax aussi mu nekkoon man dama ko doon gis lu si bëri moom Manga 2. donc ñu xam daal oyofam si moom donc di ko ñaanal yàlla yàlla atte ko si yërmandeem. oyofal suuf si kawam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. përkat yi ñu démarré ci actualité sa li nga miin muy Ndakaaru dañu mm. génn lire ci presse bi temps yi keneen Ndakaaru dafa war a fusionné ak euh, équipe Fass ma lay fusion bi jàmm la rek euh, suñu benn xarit bi ñuy wax Khalifa Dia nekk membre sa Fass moo fa bàyyi woon euh, depuis daaw nag moom ma si doon topp pour ñu ànd fusionné euh, ma toog na doon ko déglu ba tamit di si di si xalaat waaw bi ma demee ba xam ne tamit fusion bi tamit lu jaadu la ah si lay ñëw topp nag boobu ba léegi nag ñu ngi si discussion yi ah, ba xam ne bi avancé nañ ba daal ba war nañ commencé sax entraînement yi malheureusement ak Euh, lii xew xew xew xew feebar bi rek moo ñu téye ba commencé wu ñu entraînement yi waaye ñu ngi si tànk yi. mais fusion boobu est-ce que lu nécessaire la dafa jàmp wala ngeen def ko wala lan moo tax fusion boobu ngeen euh, bëgg ko def. waaw nécessaire la parce que lii ko tax mu nécessaire bu tax ma dem ba xalaat yi nga xam ne xalaat gu baax la. Mhm. mooy euh, boo ko seetloo sa fait plus de trente ans. Mhm. ndakaaru mhm. maanaam presqu'île di Cap-Vert amuñu benn responsabilité boo xam ne bii. wala benn wala structure boo xam ne mooy toppatoo euh, euh, Ndakaaru. donc amul. donc euh, région yi am nañ seen CRG ñu ngi leen toppatoo. Mm-hmm. mais Ndakaaru amul CRG. donc wañee si benn lay commencé donc dañu commencé nii si Fass mais dañu bëgg a regrouper. waaw Ndakaar dañu bëgg a regrouper ñëpp bu ñuy defar ñun di defar suñuy tournoi di tëgg tëgg suñuy làmb. moo tax ñu day commencé benn foog ñu daje ñun suñu diwaat ñeneen ñu yowaat dajewaat pour mun a samp benn ligue wala benn CRG comme kenn duñu ko sampal Ndakaaru kenn ñu ko defal ñu ne koy seen bopp nag lii tax ñuy assumé ne pas à pas ci loolu Ndakaaru boobu da nga ci boole ñoom Pikine boo ko ku si nekk da nga maanaam waa Géejawaay dañu war a daje mm-hmm. dafa am ku ñu fóor génn waa Pikine dañu war a daje dafa am ñu fóor a génn ainsi de suite ba nga xam ne bi léegi Ndakaaru yëpp dañuy daje ñu nekk benn kuréel kuréel googu nag ñuy ñëw nag ñu yëngu si lamb di di organiser seen si suñu bopp parce que kenn duñu ko defaral. c'est vrai waaw d'accord père Aliou ñu ñëw ci yow. gis na ne Matar ba avant muy fal Bira Sène doon na def ay audience mhm. mais audience yooyu dañu gisoon ne waa lutte simple bëriwut woon lim leen di dalal. Mhm. loolu nan ngeen ko doon jàngatee yéen. waaw loolu lay jàngat bi pour ñun euh, mu recevoir ñu mu bañ a recevoir amul solo li am solo mooy. Mhm. Matar ba am na ñu mu recevoir. te ñi mu recevoir aussi ñun jàpp nañ ne. lu ñu fa seen bopp làmb lañ fa demal donc ñun dañuy am kóolute si ñooñu parce que tey ji suñ fa demoon dama lay jox exemple rek amal Amalda man dew ma Saliou demul la président demul ñeneen ak demuñ donc suñ fa demoon li ñuy wax moom la fa Diène Diouf di wax yi moom la fa màng di wax yi moom la fa du jànjeekoo di wax moom la fa keneen ak keneen di wax mm. xam nga recevoir na Yékini recevoir na Manga recevoir na waa Adrien Senghor. donc tey ji ñun am nañ si ñooñu kóolute. donc recevoir ñu mais jàpp nañu recevoir nañu parce que recevoir ñoo ñoo xam ne dañuy xeexal làmb dañuy dañuy doxal si lutte sans frappe donc ñooñu vraiment doy nañu. kanta war nañu recevoir ak waruñu recevoir moom bés bu demee ba jàpp ne. war naa recevoir Amalda section sans frappe. dinañu recevoir. peut-être dafa jàpp ne loolu jotagul. mais ñu daal suñu ité mooy. na làmb ji ubbi ñu doxal làmb làmb jëm kanam ñu loolu moo ñuy intéressé mais quant à recevoir nañu recevoir nañu vraiment duñ si bugguñ si di gën a wax kii daal parce lu jàll la dañu bàyyi mu jàll monde lutte simple dafa yaatu du amal gaa kese mhm. beneen parti bi déggoon nga ne ñu ne ñoom euh, Matar Ba daf leen a xeeb moo tax woowu leen mhm. kàddu yooyu yaa ngi ko doon dégg dégg naa ko noo ko jàngatee euh, xam nga nit ku nekk soo génnee sa kàddu mhm. yow yaay responsable li ngay wax ñoom loolu ñoom la engagé engagé wul Aliou Ndour engagé wul Amal Da ñoom loolu ñu wax ñoom laa engagé Matar da leen xeeb ak respecté wu leen non ñoom bu ñu jël seen xeexi bopp bëgg a jël ñëpp ne loolu la non d'accord ma xam nga dem nañ ba naan ñëpp ñoom lañ amul gis nga ne sooy wax da wax sa aqulay taala ñoom si ñun ñi lañ nekkoon ñoom si ñun lañ nekkoon ñu beru créer seen mbirum ñoom xam nga su fekkee ne intérêt lamb dong moo leen tax a jóg jarul xuloo jarul xeex Matar recevoir la yaa ngi liggéeyee làmb mais continuer liggéey làmb Matar su la recevoir lu Sénégal yëpp dinañ xam ne yow yaa ngi liggéey làmb même suñ la recevoir kenn dootul wax dara dootuñ la wax dara Matar la ñuy wax dinañ ko ne eh recevoir leen ñee parce que ñii li ñuy doxal ci biir làmb c'est normal far la force dañ leen war recevoir ñun foofu la ñuy xool. ñun dañuy liggéeyal pour lutte sans frappe. que ñu recevoir ñu ko ñu bañ ñu recevoir dañu liggéey. loolu daal moo ñu intéressé. ñu teg baaraam ci li ñu wax. Mhm. Euh, bi Matar Ba defee loolu waa Front pour la défense de la lutte sans frappe abandon jiite ko ak euh, Doudou Faye. Mhm. ñoo ne ja d' accord ci. da yaakaar ne ñaar ñoon seen bopp la ñu xeexal. Euh, xam nga xam nga dafa am kenn ki nga wax muy Abda daf ne GIE la jiite. <laughs> GIE mbirum làmb yaa ngi man maa koy door a dégg yow mi yaa ngi koy door a dégg. saa gis nga buñ naxante. yow soo defee soo buggee def politique dangay dem nga defi politique nit ñi xam ne yow mi da ngay politique moo gën nga bëggoon bu boo benn GIE boo xam ne ay jigéen na ko moom ñoo indi ko si lamb ji te loolu dafa bëri si lamb ji ah gis nga lamb ji dafa bëri ay nit ñoo xam ne dañuy mbubboo làmb ji nañ ko teg fële foog nag loolu ñun ñu xam ko yow soo ñëwee pour liggéeyee làmb am nga sa GIE fële leneen na ko tax a jóg na fa yem yaa ngi dëgg parce que comme ni nga wax ñooñu ngay lim noonu ñoom représenté wuñ lutte sans frappe déedéet keroog bi maa nga wootee arène Adrien Senghor yaa ngi fa woon gis nga nam feese woon ñan ñoo fa manqué ñoom ñetti nit est que tax na liñ bëggoon doxal doxaluñ ko saa nañu waxante dëgg bañ topp média yi di wax yoo xam ne li ñuy wax dara amu si seen intérêt bopp moo a jóg nañ d'accord noonu ñoom nañ assumer seen responsabilité ñu ne ñun lii lii lañ bëggoon amuñ ko d'accord dañu xeexal le ministre su ko defee nit ñi xam ne ñoom dañoo bëgg xeexal le ministre suñu yoon ne aussi mais buñ si boole lutte sans frappe naan noo ñun ñoo représenté lutte sans frappe li ñuy wax dara amu si d'accord père ñu diwaat ci yow. gis naa la ba ngeen jëlee décision boobu pour ngeen euh, fusionner ak Fass sa waa côté muy Ndakaaru am na ñu ci d'accord mu lim ci kenn ci Sawru Fall nee na moom euh, yëgaloo ko woon ba ngay jël décision boobu yow da nga jël rek sans que leen ko est-ce que noonu la demee. yaakaar la warul la wax ne yëgaluma ko naa xaw ma nu mu defee waaye moom kuy yëg mooy mooy ñu mooy ñuy jëkk a hmm. ci loolu demee ko ko rek lu ñu koy def. kon wax na si gannaaw dëgg waaw ñi ma war a yëgal yëpp yëgal naa leen ko ñi ma war a waxal ñëpp wax naa leen ko. mais est-ce teel nga leen ko wax. ah doo teelu ma ko wax ah, ma leen kay teel teel a wax ñooñu teeluñu ko waaw aajul nag ma leen kay teel a wax ah ma bañ leen ko teel a wax waaw parce que <laughs> rien n'est waaw yu weesul bi ñu war a yëg yëg nañu avant ñu fi def dara woote nañu réunion sama kër toog laa ñëpp moo wax leen lu tax waaw. wax leen yëpp ku si nekk tamit wax sa xalaat waaw kon nag bu ñu toogee ba naan yëg naax yëguma yooyu yëpp ay lay ay affaire lay la rek xëy na seen intérêt gu kenn duñ si am seen intérêt gu si si gu si gu si yàqu waaw foofu lañu loolu la ñuy xool moo tax ñuy wax loolu waaw après réunion bi ñoom lan mooy seen réaction d'accord nañ finalement wala ba léegi am na ñu ànd am na ñu àndul hmm. c'est tout léegi ñu àndul noo leen di def ñu àndul sama yoon nekk si ñoom hmm. est-ce que Ndakaaru naru fa amee problème problème ban problème aussi am genre positionnement wala xeex. non bu po bu amee positionnement lu mu leen di jëriñ ku si am sa position du la jëriñ dara ndakaaru man la ndakaaru maa ko teg naa sur table ñi expliqué lu la pourquoi ñii ñëw nañu ànd ak man ñu ànd mais Dakar existé tul. Euh, ñoom Saourou Fall lan lañ woon ci euh, Dakar da nga leen ñu ñëw wala ñoom ñoo ñëwoon seen propre gré bi ñuy dugg ci équipe bi. waaw ah, ñoo ñëwoon ñëwal seen ñoo ñëwal seen propre gré. Hmm. fi ñëw yaay ñëwal si problème bi donc jëlee ma kenn. waaw ah. ah. nan ngeen ko organiser woon ku nekk dafa amoon fonction ci biir Ndakaaru wala yow yaa doon diriger lépp. Ah, daanaka maa doon diriger lépp waaw Ndakaaru daal maa fa nekkoon maa doon diriger lépp waaw mm-hmm. moom nag moom moo doon manager bi moom lañ joxoon fa weer mooy dem wuti ji combat mooy jox xale yi mm-hmm. waaw. d'accord gën ngeen a déggante ak Saourou Fall. bés bu jëm mu jaar sama kër. d'accord ginnaaw bi métaar ba defee euh, kii ba mu defee audience ba pare. Hmm. Manga 2 la jël teg ko ci boppu Lutte Simple. waaw nan nga euh, accueillir nouvelle boobu. waaw di ko rafetlu parce que euh, xam nga nga tey jii képp kuy wax Lutte Simple. Hmm. mënu ko si génnee. dafa pratiquer lutte simple avant muy pratiquer lutte avec frappe. Hmm. jóge fa nekk promoteur di tëgg bàyyiwul mënoon na ranger ngeen mam dem defi leneen defu ko. dafa continuer di tëgg ay lutte. ay gala di ko tëgg ba ay Joal fu kenn xamul dafay tëgg lutte sans frappe jógee fa yore écurie jóge fa di jàppale association yi muy ñooñu di wax ak ñun ñi ku si nekk maa nga jàppale na la ñëpp nag parce que comme li ma la wax rek ñooñu si ñun lañ nekkoon xamante nañ bu baax nag xamante nañ si ñun lañ nekkoon maa nga da leen jàppale donc tey jii su Matar Ba jëlee maa nga teg ko si Euh, bopp lutte sans frappe ñun dañ koy rafetlu am si moom kóolute gu mot sëkk nag parce que am na fu xam na bëre xam na lut sans frappe xam na problème yi war na mën a saafara lépp. mais maa nga jàppale ñoo ñooñu ngay wax est-ce que euh, loolu raison la rek pour que buñ ñëpp ànd ak moom. non lutte sans jàppale na ko. jàppale waa parce que ñoom lutte sans frappe lañ nekkoon. Euh, raison la du raison aussi ñoom ñu taxaw di wax kuñ fal defagul une semaine. Mhm. nga ne ànduma ak ñoom. vingt 96 pour cent lutte sans frappe ànd na ñoom ce qui est inexact amul waxuñ dëgg foofu jox naa la exemple keroog bi mu wootee Adrien Senghor yow mënuñ fal nit ki commencé gul nga ne non nangam di ko di ko di ko di ko di ko di ko diingat xaaral ba mu commencé su ko tegee ay act yoo xam ne yow àndoo si nga door a ne lii ànduma si ñun moom lañ àndal mais bés bu màng defee loo xam ne du noonu man may ñëw toog fii Assane wax ak yoo xam nga ma. wax non pour mu leer mais ku commencé gul mais bàyyi ko mu liggéey su fekkee ne yow leneen moo ne si sa xel mala leneen moo nekkoon sa xel nga wax nit ñi ñu xam ne exactement lii moo tax bëggoo kii wax ji yëpp loolu la su fekkee ne ñoom leneen dafa nekk seen xel nañ ko wax nit ñi nañ ko wax sénégalais moo gën ñu nëbbatu waxuñ dara lu leer lu dul ànduñoo kii kenn ànduñoo loolu lu ñuy wax dara amu si nit ñi moom lañ àndal parce que moom lañ fal te xam ne xam na làmb ñoo ñuy wax rek maa nga maa nga ñoom ñoo gën a xam maa nga làmb ndax ñoom dañoo def lu maa nga deful si làmb ñoom lan lañ def si làmb ñoom mhm. lan luñ fi def d'accord yow defoo fi dara si làmb ñu xamante yàgg daje Adrien Senghor ku si nekk xam sa morom ñu lay dëkk ay micro rek ngay wax loo xam ne yow tegoo ko fenn maa nga lañ àndal tey parce que xam na làmb di ko commencé président Bira Sène Maysa Ndiaye premier vice président Manga deuxième vice président ñoom ñëpp xam nañ leen mhm. donc dañoo am si ñoom kóolute bu mot pour mu leer équipe bii daal nañ leen jàpp ñu liggéey suñ leen jàppalee dinañ liggéey doxal làmb mais fal nit commencé gul ñii di diingat ñii di wax loo xam ne teguñ ko fi leen si seen intérêt crypto personnel lañ ko teg loolu lañ dul nangu ñoom. d'accord allez merci Pa kii Père Kati Diop. Ah. ñu dikkaat seen euh, fusion boobu instant administrativement parlant fan ngeen ci toll. waaw ñu ngi si yoon mais pareeguñu. waaw mhm. ah, mais si le problème technique bi daal. la ñuy ba pare war a commencer entraînement yi. mais problème administratif bi daal boobu moom euh, ñu ñu ngi si kawam. d'accord ban ngeen bëgg a jël choisir ko mu nekk euh, boobu. waaw ñaari tur yi ñuy boole rek. Hmm. Fass sax Ndakaaru Ndakaaru Fass yëpp benn la hmm. waaw. la ñuy jël benn. d'accord waxoon ngeen annoncé woon ngeen fi ay entraînement. Hmm. entraînement yi fu mu toll. yi da xam nga comme ni ma la wax sànq rek mënul commencer ndax. Euh, xew-xewu feebar bi. donc dafa da ñuy ñu war xaw a prudent tuuti. waaw si pro ndax ndax problème mu feebar bi parce que wóorul hmm. waaw parce que dañuy ñaar ñaar jonjante lañu ñaar ñu ay plusieurs mbër yoo xam ne dañuy regroupé si nekk daa nga bokkuloo gox gi ngay jóge hmm. donc di nga su ko defee dañuy xaw am prudent la ñuy ah, ba fii ba euh, date bi ñu joxe hmm. fan lañ siy a jël seet naka la euh, andeex moom di entraîner. entraîneur man comme d'habitude entraîneur entraîneur toujours man entraîneur laa mos a doon entraîneur laay doon ba mhm. incha allah. d'accord Alioune ñu xuus yow am na nouvelle bi fi wàcc mooy que ne Matar Ba démarré saison bi ba léegi euh, yéexaay boobu yow noo ko dundee. waaw yéexaay bi moom je pense que du si Matar du si kenn euh, Covid bi fi nekk la depuis pratiquement un an. Mhm. nekk fi bloqué lépp la. Mhm. léegi nag li mën a def mooy xool yan pexe la ñuy def pour ubbi làmb ji. parce que gannaaw yeneen sport yëpp ñu ngi ubbi ubbi nañ bàyyi nañ la ñuy ñuy ñuy dérouler je pense que làmb aussi war nañ mën a ut ay pexe yoo xam ne tey jii peut-être dinañu permettre ñu ubbi làmb ji loolu daal la mais je pense que du si Matar du si Matar ba du si président feebar bi la bu fi nekk te ñu xam ne dafa exister aussi euh, ñu war ko moytu bu baax a baax mais nag terewul parce que même européens yi tugal ñoom ñu ngi football. ñeneen ñaa ngi def seen i seen i seen i MMA ñëpp ñu ngi def seen sport donc war nañu xool ay buntu yoo xam ne peut-être suñ ko ubbee xoolaat par rapport ak médecins yeeg ñeneen ak ñeneen na lañu ñuy def pour ubbi làmb ji. voilà père ci point boobu ba léegi dama saison bi démarré ko lenteur boobu yow nan ko dundee. la lenteur boobu yéexaayu ouverture saison bii nan nga ko dundee ak est-ce que du nekk pertement après ci saison bi est du gaaw ba ah fi mu yéexaay bi rek mu ngi dépendre nag si feebar si feebar bi gars yi ñoom wax dëgg yàlla am nañ yéene woon saison bi wax dëgg yàlla feebar bi daal di ñëwaat yokkute yokkuwaat ah loolu moo tax ñu xaw ñu xaw a dal tuuti parce que nga ndax prudence affaire bi waaw fi mu nekk nag lenteur bi wax dëgg yàlla mi ngi fii nag waaye nag suñu bakkan nag moo lu si nekk nag bakkan yi ñoo ko ñoo ko gën muy sañoon nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp des fi ñëpp sañoon ñëpp andax seen santé ñëpp àndax seen jàmm donc mun nañu teey rek bu fekkee ne état bi nag wax dëgg yàlla dugal na si loxoom ah ñuy def comme ni ñuy wax rek daal di tëgg ko à huis clos moom moo gën bañ a kenn <laughs> du seet kenn du seetaan làmb waaw santé boobu nga wax moom la état bi di ragal ba mu ne euh, bañul euh, saison bi ubbi mais ci huis clos la bu dee day ubbi loolu lañ koy defee yow est-ce que ja yaakaar nga ni huis clos ak làmb bokk na mën nañu ànd ah, mën nañu ànd kañ dañuy ànd ndax moom daal di weex moom pourquoi pourquoi mënuñu ànd pourquoi mënul ànd léegi kon benn soit nga bañ a dem huis clos ah soit léegi que euh, léegi ñu ñu ñu ñu bañ a dem ba ba bëri bëri waaw waaw léegi nag bu dem bëri ji nag moom moo moo moo gën fuuf <laughs> merci beaucoup ah dem dem bëri ji. moo gën. au moins yow mi nga xam ne yow jox nañ la avance. Uh-huh. nga dem bëri sa beneen morom daal di bëri am lu mu def si poosam. moo gën nga xam ne yow demuloo bëri yi doo am dara loo def loo loo loo mm-hmm. kon nag yow ñu def ko huis clos kooku si la sa avantage la. waaw xanaa kañ du naan nit ñi moo nit ñi moo tax ngay nit ñi moo tax ngay bëri nit ñi nit ñi la seetaan ngi def huit kilo mm-hmm. huit kilo ah, nit ñi la seetaan mais buñ la fekkee ne nag defuñu ko nga da xaar pour nit ñi ñëw seetaan si la ah te loolu mënul nekk nga nga préféré toog ba nit ñi di ñëw kooku perte kooku pertement kon nag ñu tëdd huit kilo ñu lañ koy tëddee moom mooy lii gën ko si ko ko defee lu mu bon bon bon am na ñenn ñoo xam ne am lu ñu mos def seen poos d'accord ok euh, Aliou si mhm. yow la ñu ñëwaat waaw di maa nga ñëwee après am na am na ay dogal yu jël. waaw baissé na euh, licence yi. 1000 mhm. francs yi nekkoon ci làmb ji également dindi nañ ko. dëgg ba lan la leen nouvelle def. di ko rafetlu képp koo xam ne da nga bëgg làmb niti làmb da ngay rafetlu mesures yooyu nga xam ne maa jël na ko. Mhm. ànd seeg waa CNG. donc muy déjà 1000 francs yi nga xam ne dañ ko doon mëri dañ ko doon fay pour bëre yàgg nañ ko jooytu fu nekk mhm. jooytu nañ ko fa ñu të biñ ñëwee ñoom maa nga fexe na buñ dindi ko ñu dindi ko licence yi mbëri wàññi nañ ko promoteurs yi seen licence yi wàññi nañ ko donc loolu ay actes yoo xam ne la dañ ko war dañ leen war a remercier si loolu déjà dañoo commencé même pas un mois ñu ñu def loolu donc ñu leen di remercier ñu continuer si lancé boobu si lancé boobu ñu nekk noonu te bañ a gestu seen ginaa xool ñi nga xam ne coow rek leen tax a jóg làmb lutte avec frappe mën nañu séntu ne li huis clos mën wala mënul am bu dee lutte simple moom. yow nan nga nan nan nga jàngatee loolu. lutte simple nag posé nga ma question boo xam ne mën naa ne depuis loolu man chaque jour damay nekk di réfléchir si nan la ñuy commencé. pour pour pour bañ la nëbb. problème bu mag la. parce que déjà huis clos simple. pour man mënul nekk. lu tax mënul nekk. non parce que xam nga ñii ay promoteurs yoo xam ne tey jii ay billets si billet lañ yaakaar. Mm-hmm. parce que aussi nit demul tëgg làmb juste pour tëgg làmb noonu bañ si am dara amul benn promoteur boo xam ne da ngay tëgg ji pare nga dem toog sa kër donc ñoom dañuy investir pour gagner dara léegi ne investissement boobu fi ñu ko mën a amee ñun amuñ sponsor su dee lutte avec frappe war nañ am nañ ay sponsor peut-être sponsor yi mën nañ leen décanter si yenn ki mais lutte sans frappe amul sponsor mhm. te là aussi dinaa lancer appel CNG ñu fexe man côté boobu surtout nga may ma rek sponsor yi na ñëw lutte si lutte sans frappe euh, lut avec frappe moom comme li may leen di faral di sànni xeer fala la xaalis ba ëppee. mais su dee làmb dëgg ak cosaan lutte avec lutte sans frappe la. donc euh, su dee sponsor yow bëgg nga vraiment visibilité ak cosaan ñoo lut sans frappe te laa ñun tey jii pour ñu mënoon tëgg foog ñu am sponsor yoo xam ne dinañ jàppale suñu promoteur mais amul amuñ sponsor yu mën a jàppale suñu promoteur donc laa nguur gi moo si mën a teg loxoom. tey jii soit mu indee société yu mag yi nekk fi mais nañ ñëw dugg si làmb ji jàppale la lutte sinon nguur gi si boppam xam na muy def ak promoteur ñu tëgg làmb ji ñëw bi làmb ji loolu rek mooy solution mais lutte sans frappe mënul tëgg sans sans sponsor ni nii ni bieu mais est-ce que sponsor yi gis nañ attractivité ci lutte simple ba war a ñëw di ko di ko sponsor absolument yoo xam nga ne lut simple moom su dee attraction su dee visibilité am na fa am na fa chaque jour fu ñu tëggee day fees dell te yàlla xam na ne amul violence amul dara. d'accord lu simple nga mën a tëgg ba zéro heure nga ñibbi doo fa dëgg agression. c'est vrai zéro heure. Mm-hmm. même suñ demee suñ dañ leen dem Ibamar dañu tëgg foofu. Mm-hmm. lamb dafa joon jeex ay zéro heure ñi jógee ñi fii ñibbi ba Kër Massa doo mës a dëgg agression. donc mais pourquoi pas ñoom lan lañ bëgg na ñëw si lutte sans frappe ñu sponsoriser leen. amul coow amul xeex amul dara. d'accord Aliou dernier point bi may aborder ak yow mooy hmm. Reug Reug annoncé na ne doy jógee ci lutte simple. Hmm. loolu ba nga koo déggee est-ce que amul ay grincement de cœur yoo am. soo mënee may juste rek par rapport à Matar Ba. ma am lu ma si kii parce que dafa nekk ministre boo xam ne vraiment comme ni ko donc ti waxee. Hmm. dafa nekk accessible. mosuñ ko am comme ministre. franchement suñu waxantee dëgg mosuñ ko am. en plus euh, tey jii ñun li ñu mën a jàpp mooy. xam nga moom la fi yàlla teg communiste ministre des sports mu xam làmb aussi bëgg làmb ñu liñ bëgg mooy mu def le tout bu ñu jéem a assainir la lutte d'accord ñu assainir lutte bi làmb ji par rapport ak Reug Reug mm. euh, vraiment muy nouvelle bu ñu métti parce que Reug gis nga ni muy animé lut sans frappe mm-hmm. te dafa bëri ay supporters donc euh, mais aussi nit da ngay respecter kii am décision mm-hmm. te aussi dafa am plan de carrière mm-hmm. donc liñ koy ñaan aussi de temps en temps ni ñëw Adrien Senghor muy ñëw lutte sans frappe parce que koo xam bari na fay fans la ñun tey yi su man su may seetaan MMA moom moo tax waaw donc ay combat yëpp dama koy seetaan donc ñi ko ñaan mu bàyyi xel aussi la lutte sans frappe parce que fa la jógee moo lutte sans moo tax ñu bëri xam ko donc mu bàyyi sa xel la perkat yi agsi ah, li may tàggoo rek mooy ah, Seyna Aline fu muy yéexale rek mhm. si euh, rëg-rëg boobu rek mhm. Euh, xam naa ne du bàyyi. dul bàyyi lutte simple. waaw pour lutte simple tëggee pour mu pour mu nekk fi. bu ñëwee dina sa dugg. te bu foo gisee bu foo gisee ay koppar <laughs> dina fa bëri parce que ay koppar moo ko tax dem fële. bu gisee koppar dina ko dina ko dem jëli ji. ba pare am naa si animation moom fu ñu ko fu ñu ko ko dóorale. dina dina dina dina dina dina wàcc. fu ñu ko wooyee dina wàcc dina dina ñëw fecc dina anime waaw mooy xam naa ne moom li wóotam mooy du ko bàyyi. te leneen nañuy def nag. sëfale. Euh, euh, opportunité bu mag la si Sénégal. MMA mm-hmm. waaw. ba sànni ci benn kàddu avant nga. bu mag wax naa ko si benn euh, TV télévision bi. Mm-hmm. mos naa leen koy wax nee naa leen loolu bu dikkee mm-hmm. avantage bu mag la pour Sénégal xam nga nu muy nekkee avantage bu mag. Uh-huh. mooy mbër moo fu jëlee ji mu dem fële. bu fa demee dafay def victoire. mbër moo fi jëlee laa la wax de. bu fa demee dafay am victoire. parce que base bi. base bi ñu am moom la moom la Sénégal xamul lan mooy suñu bëre dëggantaan xamuñu ko xamuñu possibilité bi nga xam ne bi technique gu làmb bi Sénégal bi nga xam ne bi wax dëgg yàlla am nañ ko euh, gars yi xamaguñ ko mais ñëla bu ñeen di daan nag xam nga Bombardier dem na daan mm-hmm. euh, niñ ko euh, re kii beneen booyu kii bi lamsaar bi surtout dem na daan mm-hmm. rek dem daan daanaat gis bu ñuy dem daanaat mais ñëla di naan mais ñii lan la foog xam nga euh, euh, biir kuréel dañuy am curiosité duñ mais ñii lan la il faut ñu ñëw xool lii ñii lan moo tax ñuy am lii ba di daan mm-hmm. te loolu du yemul foofu si suñu bëre bi de mm-hmm. euh, suñu maam yi bi ñuy dem di xeexi ji duñ daan tirailleurs Sénégal pourtant mm-hmm. c'était pas toujours tous les Sénégalais parce que Afrique de l'Ouest lépp la woon mais lu tax ñu ràññeeku mais parce que suñu maam yi dañu mën bëri ñoom ñëpp léegi nag nga ñëw ngay juddu ñëpp mënuñu bëri ñenn yëpp daal di mun bëri mais ñoom ñëpp dañu mun close combat dañu mun bëri parce que mun nañ dañ mun nañ padd waaw mun nañu mun nañu riñaan nañ boot du ko defee nag bu ñu dajee gaa yi duñu leen di ràññee ràññee leen boobu bu ñu bu ñuy demee fu ñu fal du ñuy topp di daan gaa yi daan gaa yi ba gaa yi dinañ jaaxle dinañ leen ñëw di demander mais lépp pourquoi parce que tubaab dafa curieux waaw di leen gërëm si invitation bi di gërëm sama euh, Seyna Alioune Ndour euh, am si mbégte bu mag ñëw fi teew si wax bu ñëwee toog ñun di ñëwaat ñu invité ñuy wax ci làmb pour làmb dox kese la waaw jot gi sax amul waaw <laughs> fi ñu nekk ni maa ngi si ñaari dëj mais gis nga làmb su fexe naa góorgóorlu bu ñëw pour làmb dox rek pour ñu teg làmb si yoon kese loolu loolu moom moo tax mais temps bi amuñu ko âge baa ngi avancé door waa di ñaanal suñu nijaay ji rek yàlla sàmm ko sàmm njabootam vraiment mu yàggal koo si suñu kanam di nuyu aussi waa Leewtoo TV Pape Thialis ñu ngi koy ziar bu baax di la ziar yoo Assane yàgg nañ vraiment di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal yàlla aussi vraiment fi ngeen nekk moo gën a avancé donc di gërëm axlu làmp yëpp di commencé du jànjeekoo euh, président Saliou Diouf ñoom Diène ñoom Mbaye ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar mu limeer li muy Diouf mais maa ngi ziar ñëpp donc di sant ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf loolu moo nekkoon jotaayu làmb tey deuxième émission boobu mu ngi noonu ñuy remercier Père Kati Diop ci invitation bi bu euh, yombalal ñu ko digg waxtaan également am solo lool Aline également ñu lay remercier bu baax a baax a baax li moo doonoon seen deuxième numéro jotaayu làmb di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf